laa wax nii j'avais un projet de vingt cinq dëkk wax la bu ma ànd ak président def tournée boobu laa ne man Elaj Kane buñ jëlee nguur gi man sama wàll dinaa fexe def tout ba au moins ma am lu ma lu ma mën a teg loxo si waa Bambey te électricité dafa am solo ma dem fexe ba am un projet de vingt cinq milliards ba tey eggul si président de la République te mënoon nañu ko eggale si président de la République du ma tudd tur jël naa dossier yóbbu ko si ministre de ministre avec les partenaires italiens ñoo xam ne si dara maire boobu mu may dëgg muy maire bi xam ne fu ñu waroon def centre centre solaire bi muy euh, mu octroyé octroyé ñu sept hectares ilifal maire de Ngoy foofu la ñu doon def centre bi kon bu nee mi lépp a ñu dox mais ABC dafa ne ko lii doxul Fuuta bi mu yaakaar élection yi élection locale li fi législative li fi xew opposition ñoo yee wax lii am du ñun jël nañ xeex nañ ba nguur jour élection 2012 bii li xew élection législative yi passé vraiment vraiment man rafetlu wu ma ko dama koy wax si kaw ñun ñaanuñu yàlla réew di dellu ginnaaw si ci affaire de affaire démocratie. ñaanuñu yàlla mais damay ñëwaat damay ñëwaat ci Alioune Badara Cissé loolu mu wax mu dem mu dem mu dem mu dem Fouta li mu gis Fouta yaram dafa daw il a pleuré une maladie man doomam laa te dinaa wax dara ci Ahmed Alioune Badara Cissé laa koy wax fii si rajo bi. bu jëloon sama yére sànn si mbedd mi dinaa jëlaat sama yére dugg sama kër baay parce que mënu ma ko fay mën ma am dëgg si kaw waajooju nag tew baay doole la am surtout baay bu mat baay ABC baay la si ñun ñun ndawu APR danga ko delloo war a delloo njukkal te danaa ko delloo njukkal man El Hadj baatu la ilaha illallah mosuma waat nag kooku c'est une référence pour moi te mënu ko fay man El Hadj Kane ko fay

même bu ma kon responsabilité yi gën a ngam jox nañ ma ko war a wax damay wax wax naa la kan mooy sa bàyyi ABC jox na man dama bokk si dama bokk xam li li la boole bokkut sama yaay nee na moytu na dugg si ndab ñu ko ko man dama xeexal sama réew dama bokk tabax APR créer APR sëñ bi dama war a wax dama noppi woon j'attendais le bon la force n'était pas perpendiculaire en ce moment parce que dans et dans force fois distance la force et perpendiculaire maintenant je suis en train de s'exprimer et je vais continuer à s'exprimer du ma nangu du ma nangu ñu jëlaat def ko suñu on a sorti le Sénégal dans l'eau en 2012 on avait sorti le Sénégal dans l'eau en 2012 grâce o jeune les trois cas du ma nangu encore encore dama koy waxaat du ma nangu ay ñenn personnes yi di jël di jëm a nax président du ko du ko def loolu loo xam ne ñun xamuñu aussi jëm jooju xamuñu ko président yërewuñu yi loolu la ñuy xaar mu doxale noonu réew mi. da nga wax ne bu man mais ñi ngi ah mais tey jii boo nee ana ñu àndaloon ana Thierno Alassane Sall dégg nañ ko korog tout récemment bu ko Pape Alé invité li wax na ko tontu Thierno Alassane Sall loo bañ bañ bañ nangu ko def c'est un homme euh, euh, loyal sincère qui incarne dégg na li mu wax na xool ku mel ni euh, euh, waxaa naa ko ku mel ni Alioune Badara Cissé ba cëgg nar kam na wàcc ko xool Moustapha Cissé Lo malgré li muy wax ànduma si parce que wax dafa war a am teggin deuxièmement li muy wax Sonko waru ko wax Sonko du morom Moustapha damay taxaw foofu du morom Moustapha Cissé Lo Sonko dafa bëgg nekk président de la République du Sénégal danga war a ormal danga ko war jox cër waru ko wax euh, euh, Sonko le président Sonko waru ko wax dafa loolu dëgg Sonko lu mu ko wax mais mais daf ko wax daf ko wax nag euh, damay saluer président Moustapha Cissé Lo moom moo njëkk ñëw Bambey man maa ko njëkk ñëw Bambey boobu amaguñ coordonnateur départemental meeting bu njëkk a def Bambey mu nekk meeting bu gën a métti ba génn ay chars de combat lépp indi ko jour boobu Cissé Lo dafa jël avion yëg si kaw avion bi bëgg a dem bëgg a dugg xom président moo ko yónni ma woo ko ma ne ko président foo nekk mu ne maa ngi aéroport ma ne ko boo gaaw de dëkk bi dina tàkk mu ne ma lay wax nii ma ne ko ma ne ko bàyyi lépp na def mu ñëw jour man maa njëkk a ànd na billet billet diggante Dakar ak Bambey une heure temps une heure trente la ko daw jour boobu meeting bi gënoon métti ñun ñoo ko organisé man Moustapha Ngom en passage maa ngi yoon nuyu Moustapha Ngom Moustapha Ngom mënul njëkk a tudd deretam affaire tey lan la bénéficier dara ñun ñaar kooku mu ma dugal affaire ñun ñaar ñoo ànd lu nekk dégg nañ ko Bambey lu nekk dégg nañ ko ñu jàpp rek te bàyyi xam nañ ne mbër mii mbër mii mbër mii ñu àndal yàlla def na si moom président président.